dama ñëw fii ci siège FRAPP indi suñu sutin ci suñuy camarade waa FRAPP France degage parce que dama jàpp ni lépp lu leen laal dafay laal FDS les Guelwaar lépp lu laal ya a marre day laal FDS léegi la war parce que suñuy partenaire stratégique lañ ci xeex yi nga xamante ni dañu ko bokk ci réew mi ngir dooleel démocratie dooleel état de droit ci bir réew mi xeex yooyu dañ ko bokk ndax ñun FDS les Guelwaar dama koy wax toujours parti de combat la parti de combat buy liggéey aussi pour un parti de gouvernement ñiy liggéey ci ñaari levier yooyu mooy waral xeexu askan xeexu mouvement sociaux yi xeexu mouvement citoyen yi chaque jour ñu koy bokk ak ñoom kon lu mel nii su laalee FRAPP laal Guy Marius Sagna daf ñuy laal lu laal Guy Marius daf may laal personnellement parce que c'est mon frère c'est mon camarade Guy est le symbole aujourd'hui de la résistance de la jeunesse africaine. En cela, jàpp naa ni waruñu ko bàyyi ak état waruñu ko bàyyi ak ay procureur yo xamanteni xamuñu sen responsabilité jëfewuñ sen responsabilité jëfewuñ li tax ñom ñi nek procureur xamuñu ko ni bàyyi ni ñi laqatu ci je ne sais quoi di autosaisir nous demandons la libération immédiate sans condition de Guy Marius ñi stabilité ci dëkk bi di ko ñaan jamono bu ne di ko jamono bu ne paix jamono bu ñi nguur am responsabilité aar yiir jàmm jooju stabilité boobu nañu xam stabilité boobu mënul am ci suñu réew mi ku mel ni gii Marius Sagna di nekk prison ca tegawul ci dara procureur de la République

askan wi ñu ngi ko ci xaar wu ci waxu ci ce yoyu bari na ñi Nous wax ay phobie Nous ñi ci impliqué wu ñan lañ ay député de la république député yoyu dem bay accuser la gendarmerie nationale de notre pays di ay institution yuy accuser ay institution La justice ñooñu di defar ay faux billets ñu ñoo reprendre seen place dans la société dem ci rajo yi ak télé yi di xas nit ñi di xas askan wi dem ci télé yi ak rajo yi reprendre seeni activité politique ca dara xewul boobu ba léegi procureur Bassirou justice ci réew mi bu fekkee am na jàpp naa ne am na suffisamment de travail ci jamono boo xamante ni ab institution lëmb éclaboussé nañ ko ci ay passeport diplomatique ay député yu bëri ñii naan ñaar ñii naan ñett ñii naan ñeent ñii naan juróom ñii naan ay vice président de l'Assemblée nationale yooyu yëpp coow loolu boobu ba léegi justice deful liggéeyam ñi ni ñoom dañuy def seen liggéey ci Guy Sagna Yeni nyom dayi defsen ligye Che aktivisi yu yanama Fi Kona fekul kame fi ki Senegal Justis amu fi Wala justisu Kumba amday akumba amunday Le fi di ay dosye Yo ay sitwayen Senegal Diyol yo bouti justis te justice àdduwu ci bari na lool lool lool ci dëkk man fii laa nekk rëbës ñi agressé ma rëbës ma génn def sama plainte booba ba léegi plus d'un an man citoyen sénégalais laa wala duma citoyen sénégalais la kan la ñuy nax kan la ñuy waxal nous exigeons la libération sans condition de Guimari en ce moment-là je devais être à Thiès dans le cadre de la coalition de Yewi Askani parce que je suis le point focal à Thiès dans le département pour l'installation des structures mais dama ne ce fait ñu yëngal su fekkee ay manifestation la bëgg la voie la plus rapide pour Macky Sall de maintenir Guy Sagna dans la prison su fekkee place de l'Obélisque la place bu fekkee rek la nam na maintenir Guy Sagna en prison bu fekkee place Washington la bëgg ñu occuper ko na maintenir Guy Sagna en prison je suis très clair je suis formel et j'engage FDS dans ce combat je peux parler au nom de FDS Les J'engage notre parti dans ce combat. Nous exigeons la libération de M. Guy Merci beaucoup.